Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information procès Momodou Diop. Le verdict est attendu aujourd'hui. Le jeune étudiant est mort lors des manifestations post-électorales. Deux policiers sont inculpés euh, dans cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Opération de déguerpissement à l'ancienne piste de Mermoz Sacré-Cœur, une opération euh, du maire Barthélemy euh, Diaz. Les mécaniciens très en colère ont résisté à cette opération. n'entendent pas euh, quitter les lieux compte rendu avec euh, Mame Biram Diouf euh, Pape Fall. C'est leur façon à eux, ces mécaniciens, de dire non face à la volonté de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur de les RPIR. ñun nag ñu ngi fi sàcc ñu fenuñu te ñëwuñu fekk terrain jàmbur ñu dugg fi. Nous sommes irréprochables. Ce terrain nous a été cédé par la ville de Dakar du temps du maire Mamadou Diop. C'était un projet bien ficelé pour nous caser ici. C'était un projet bien défini. Barthélémy Diaz, qui dit être dans ces droits, ne fait pas dans la reculade. Il est inconcevable qu'un citoyen sénégalais puisse bénéficier d'un titre de propriété en bonne et due forme, un titre foncier, à avoir payé ses impôts à l'État du Sénégal, et que des individus qui n'ont aucune autorisation ni de la mairie, qui ne paient aucune redevance, se permettent, et qui n'habitent de surcroît pas de périmètre communal, se permettent de menacer les gens en disant que ce terrain, ils ne sortiront pas de ce terrain. à ces mécaniciens. Je vous est offerte, parce que dans ce dégarpissement, il y a une mesure d'accompagnement qui est chiffrée à 60 millions et le promoteur est disposé à la Euh, à la disposition donc euh, de ce groupement de mécaniciens pour qu'ils puissent trouver un autre terrain, quitte à l'acheter et à s'installer. C'est le conseil que je leur donne aux lanceurs de pierres et à ceux qui pensent qu'ils ne partiront pas. Je peux leur rassurer en leur disant qu'ils partiront parce que c'est ça notre responsabilité. léegi nañuy def appel. Nous interpellons le président de la République euh, parce que le maire Barthélémy Diaz a même menacé de mettre feu ici. Il veut reprendre de force ce terrain, mais où est la loi dans tout cela? Ce n'est pas normal. Aurait-il brandi son arme pour un tir de sommation? Le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne veut se prononcer là-dessus. Déterminé, il lance ceci. Aux Sénégalais qui disposent de véhicules ou d'un quelconque bien sur ce terrain, je vous invite à venir le prendre parce que dans le cas contraire, ces biens seront vendus à la ferraille. Le procureur saisi, le sous-préfet aussi informé sur ce bras de fer, reste maintenant le ministre de l'Intérieur, ajoute Barthélémy Diaz, qui promet de revenir. Les travailleurs des collectivités locales déroulent un deuxième plan d'action appelé Retour au bercail, détourné dans les 19 communes de Dakar. Une marche nationale et une grève sont prévues. L'intersyndicale des collectivités locales veut pousser le gouvernement à revoir l'acte 3 de la décentralisation. Aminata Mbaresso. La mairie de la Médina, point de rencontre du jour, ces travailleurs des collectivités locales continuent leur bataille contre l'acte 3 de la décentralisation. Ils mettent en branle leur deuxième plan d'action intitulé Retour au bercail. Après plus d'un an d'exercice, jusqu'à présent l'État n'est pas en mesure de finir la réforme qui est restée jusqu'à présent en sa phase La phase qui pour nous est la plus importante, puisque concernant les finances locales, jusqu'à présent, n'a pas été abordé. En dehors de quelques petites percées sur les salaires, jusqu'à présent, beaucoup de nos camarades sont restés aujourd'hui avec des arriérés de salaire, l'absence de couverture médicale, la perte de tous les droits acquis. Ce qui est quand même une hérésie. Au programme détourné dans les 19 communes de Dakar, une marche nationale, le tout suivi d'une grève générale. L'État repris aujourd'hui va, je pense, finir les tournées au niveau de Dakar le 10 janvier, aller dans le département de Guédiawaye, de Pékin et de Rufisque, et après cela, nous allons organiser une grande marche nationale pour ensuite aller vers une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Le jour de la clôture, je pense que les arrêtés préfectoraux seront déchirés. Ça n'a aucune valeur juridique. Nous avons accepté de jouer un jeu, mais on n'est pas considéré comme de vrais partenaires. En ce moment, chacun prendra Parce que ce que nous voulons, c'est de retourner à la ville purement et simplement. L'acte 3 de la décentralisation, un combat qui engage aussi certains maires, c'est le cas de Bambefal. L'acte 3 a été conçu dans la précipitation. Vous saviez que c'est à la veille de Magal de Touba qu'on a convoqué les députés à voter cette loi. Cette loi a été très mal pensée. Je ne dis pas que l'acte 3 est totalement négatif, mais sur le point qui nous concerne aujourd'hui, le redéploiement du personnel, ça a été un Donc nous demandons solennellement et immédiatement à l'État de prendre toutes ces dispositions nécessaires afin que les agents redéployés dans les communes puissent retourner au bercail, à la ville. Faute de répondre à toutes ces préoccupations, le travail risque d'être plombé dans les collectivités locales. Cette fois, l'intersyndicale des collectivités locales promet le feu. Aminata Mbaré Sow au cours de la rencontre de l'intersyndicale des collectivités locales, le maire de la Médina est revenu sur des dysfonctionnements notés dans les textes de l'acte 3 de la décentralisation. Bamba Fall annonce euh, que l'État du Sénégal a aidé certaines mairies à payer les salaires de leurs agents euh, les deux mois passés. Une chose, dit-il, qui s'est passée, qui s'est faite en catimini. Je vous propose de l'écouter. L'État a publié ce décret qui a donné naissance à l'acte de la décentralisation. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils se sont plantés. Parce que dans certaines communes, faute de ressources financières, l'État a dû puiser dans ses propres fonds pour payer les salaires des agents. ces deux derniers mois. Je peux vous donner les exemples de la mairie de Cambérène et celle de la Padoie. Ça a été fait sans médiatisation. Et tout cela montre que l'acte 3 de la décentralisation qu'ils ont voulu imposer est même devenu pour eux une équation difficile à résoudre. Oui. Ras-le-bol des populations de la commune de Kounkané, située sur la route nationale numéro 6, elles sont confrontées à d'énormes difficultés, manque d'eau potable, d'électricité et absence de centre de santé dans la localité. Elles menacent de durcir le temps euh, si rien n'est fait par les autorités. C'est une correspondance d'Abdoulaye Diallo. Kounkané va mal, Kounkané va mal. C'est avec ce slogan que des centaines d'individus habitant la commune de Kounkané située sur la route nationale numéro 6 dans le département de Vélingara ont battu le macadam pour réclamer de l'eau portable un centre de santé, l'extension de l'électricité et des infrastructures sportives, entre autres doléances. Nous, population de Kounkalné, avons décidé d'organiser cette marche dans le seul souci de rappeler au pouvoir public les contraintes qui perdurent et plombent le développement de notre commune. 1. L'érection de notre poste de santé en centre de santé de niveau 2. 2. L'extension du réseau électrique. Troisièmement, le fonçage et l'équipement d'un forage. 4. La fermeture des caniveaux bordant la RN6, car ces derniers sont devenus un pour les habitants, surtou pour les enfants pendant l'hivernage. Cinquième, l'installation d'une piscicole. Toutes les communes qui sont traversées par les chantiers du MCA ont bénéficié d'infrastructures sociales de base, sauf la commune de Koumkane, selon les propos des marcheurs. Dans une, commune forte de près de 20 000 âmes, que ses habitants ne puissent pas se soigner convenablement, ne puissent pas accéder à une que la majorité de ses habitants ne puissent pas profiter de l'électricité. Quelle une malédiction Toutes les collectivités locales traversées par la route, financées dans le, le cadre du MCI, ont bénéficié la, de nouvelles infrastructures socio-économiques ou socio-éducatives, à l'exception de la commune de Kounka. Les habitants de Kounkané menacent de durcir le temps au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en compte par les autorités. Amélioration de l'irrigation des terres de la vallée du fleuve Sénégal, la Banque mondiale injecte 17 milliards de francs CFA pour réaliser des ouvrages hydrauliques dans la région de Matam. C'est une réponse aux inquiétudes des riziculteurs euh, qui souffrent annuellement des baisses du niveau de d'eau du fleuve. La SAED a déjà mobilisé les entreprises pour le démarrage des travaux. C'est une correspondance de Ali De nouveaux aménagements ont été réalisés durant ces trois dernières années du matériel agricole pour la mécanisation de la culture irriguée déployé également. Mais la maîtrise de l'eau reste et demeure un obstacle majeur. La baisse drastique chaque année du niveau d'eau du fleuve Sénégal et de ses effluents ne favorise toujours pas la double culture. Face à cette contrainte, l'OMVS, à travers la Banque mondiale, vient de lancer les travaux de la deuxième phase du pour renforcer les acquis de la SAED. un autre problème qui était au niveau de ces périmètres Amadi Wonare et Orkadjere, c'était le retrait prématuré, prématuré des eaux du Djoulol. Ça aussi, dans la première phase, il y a un ouvrage qui a été réalisé qui aujourd'hui leur permet de pouvoir faire un calendrier culturel, respecter le calendrier culturel. Et également, cet ouvrage Cerise sur le gâteau leur permet non seulement de pouvoir sécuriser donc leur culture d'hivernage, mais même de pouvoir envisager des saison à l'image de Orkadjere qui a fait l'année en 2015 la campagne historique de concession chaude. Pour la première fois, ils ont pu avoir ça dans leur histoire. Le Djoulol, j'ai posé le problème qu'il posait euh, pour l'alimentation à nos deux périmètres. Nous nous attaquer à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est l'eau qui vient, du Djeri, qui amène donc du bassin versant du Djoulol, qui amène le sable, qui le dépose au niveau du Djoulol. Donc dans la projet d'aménagement. Nous allons aménager le bassin versant pour pouvoir Ensuite, dans ce même programme, pour ce qui est donc le secteur où nous sommes, il est envisagé, il est retenu de réaliser l'ouvrage contour de décret de Yédia. Depuis très longtemps, aussi bien les autorités, ont toujours exprimé le souci d'une meilleure valorisation de l'eau de crue. Une deuxième phase très attendue par les paysans de la région de Matam qui ne cachent plus leurs espoirs après autant d'efforts consentis pour l'amélioration du secteur agricole. Du côté de la SAED, les entreprises ont déjà été désignées pour le démarrage effectif des travaux sur les différents ouvrages hydrauliques prévus à cet effet. Ali Bandelian, merci. C'est la L'info revient à 8h en Wolof. Merci Fatima Ba Diakhaté. C'était le premier journal de ce jeudi matin. On est le 7 janvier. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. La rédaction qu'on retrouve dans quelques minutes à 8h. Ce sera euh, pour un autre journal. Mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média mu nekkoon journal bi ak Fatima Ba Diakhaté 7h27 mooy euh, doog a jot euh, ci yoon léegi nii war nañu ànd ak yéen.

les mécaniciens organise la riposte. Mhm, euh, Pape Cheikh loolee ci la l'observateur euh, xëy ndax dimb ab opération de déguerpissement le mairie bu Mermoz Sacré-Cœur bëggoon a amal ca ancienne piste waaye loolee mujjut ant wala ba mujjut a demee ni mu ko bëggee woon moom Barthélemy Diaz nee nañ bi mu yegsee ca bërëb ba dafa génnee euh, fetalam daal di tiire en l'air maanaam ci kaw ngir tiital mécanicien yi waaye ñooñee fekk na Euh, ñu pare noppi organiser seen riposte ne xalaatuñu benn yoon jógee fi nga xamante ne euh, foofee euh, moo di ancienne piste bi ñu jàpp ne ñoom titre foncier lañ fa am. waaw loolu nag muy coow loo xamante ni fi mu tollu tembe ñu ngi xaar fan la nent di mu ki gëtam loolu rek la ñuy loolu la ñuy ibbee sax ñun itam ci journal bi léegi Fatima Ba Jaxate quotidien ñëw na ci coowal Necotrans mi yokk tarifu lii ñu tuddee manutention les miniers assez Euh, laissé euh, à quai tey seeni titre mbàjj bi yenn saa yi doo comprendre dara. waaw loolu seen bopp la ñuy bindal journal journaliste yi. ay ay yoo xamante ni kiy jënd sax du ko comprendre <laughs> les mi les miniers laissés à dëgg la nag waaw coowal coowal ne ko trans waaw coowal ne ko trans ak jafe-jafe yi nga xamante ne jural na ko ñe ne ca port autonome bu Dakar Pape Cheikh mu ne yokk gi ñu yokk yenn ci tarif foofule tax na ba ñu bëri am ci ay jafe-jafe daanaka ñoom jamono ji euh, dem ak dikk ca bërëb ba euh, doonute lu yomb ci ñoom loolee ci le quotidien euh, xëy ni ki tey ci suba Euh, présidence euh, bu commission UEMOA euh, ak coowam loolu la yéen kaay bi di laas xëyee tey Macky vote ajibu coow li mel na ni jeex na bu sukkandikoo ci laas ndax nee na njiitu réew mi président Macky Sall moom mel na ni daal moom njiitu réew mi tranché na débat bi féete na boor ba tey ci yéenekaay yi ak seeni xët grand place waxtaan ci dossier bi mu tuddee dossier déclassé loolu nag mu ngi jëm ci ñi ànd ak maître Ousmane Ngom euh, nee na basta euh, ci kii di euh, Mama mam Mama Diop Pape Cheikh di wayjur bu góor ci étudiant boobee ñu faatoon ca place de l'Obélisque di du Diop. Euh, kii nag nga xamante ne moom moo di usmaan Ngom nekkoon jamono yooyu jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi lu mu xamle moo di ne Mama jóg moom day jëfandikoo rek wala bokk euh, day tax rek ci euh, faatu doomam jooju mu ci ut xaalis ndax moom demoon na ba foofulee ca Mbuur jaale ko doomam ji faatu waaye itam joxoon ko koppar yu takku teewul waa jooju mu ne fu mu toog di yàq deram ab takk der la ñu teg loxo moom nag dip MDL chef entre guillemets ci section recherche bu Colobane teg nañu ko loxo ci Zoom euh, loolee lañ ciy liir ci xët bi euh, ni euh, loolu mu ngi jëm ci traque par la police pour escroquerie. pour escroquerie waaje ñu ne ca Colobane la nekkoon Pape Cheikh di daal di mbubboo rek ne moom polici policier la ba tax na di xam ne gendarme la di xam ne sax ne ne ca section de recherche la bokk waaye mujj nañ ko teg loxo ginnaaw ay njuuj njaaj yoo xamante ne jot na kaa def foofu le ca Colobane. keneen a ngi il est recherché par la par la police par Sénégal Libération moo xëy du ñu xamal ni euh, kookee nga xam ne ni euh, Sénégal ak Mauritanie ñu ngi topp ci ay tànkam ñu koy tuumal euh, li ñu tuddee ak terrorisme ngir coowam loole jàpp nañu lu toll ci neuf suspects ba teg leen en garde à vue waaw Pape Cheikh ñu ne jàpp nañu yeneen suspect euh, ginnaaw liggéey bi nga xamante ni Sénégal ak Mauritanie ñu ngi koy def ngir rek teg loxo jihadiste boobu euh, daw ca prison ba li ñu xam ne nag moo di ne transporteur bi ko dugaloon Sénégal moom teg nañ ko loxo. Mm-hmm. te wax na ne bu mu koy indi dafa ànd ak benn cousin am ci euh, ci biir oto bi xam le ne itam ne waa ji jamono ji lu mu bëgg mooy dem ca Mali fekk fa ay nattangoom jihadiste. yéenekaay bi di enquête xëy na tey ak kii di Ismaïla Madior Fall pàcc bi mu ngi ko tuddee tel quel ñoom ci enquête ak ni ñu ko nettalee eh, ñu ngi bind ci français ngir eh, titre ko des honneurs et des a et des errements. et des errements enquête moo ci def gëstu gu am solo eh, Pape Cheikh yéenekaay bi xëy rek ci ki nga xamante ne moom moo di conseiller bu njiitu réew mi président Macky Sall di constitutionnaliste bi di Ismaïla Madior Fall dellu si ci jaar jaaram ak kaddu yu mujjee yëkkati ñu jàpp ni du kaddu yoo xamante ne xaaroon nañ ko ci moom enquête daal moo def benn gëstu bu am solo Ismaïla Madior Fall. yéenekaay bi di évidence xëy na tey ab ak ab chamboulement bu am ci ministère du tourisme ba tax ni yéenekaay bi ñu ngi ca kaw nii bu ñu moytuwul tourisme boobule mu ngi ci la mi ngi ci déclin euh, Pape Cheikh yéenekaay bi di l'évidence lu mu xamle moo di ne ay jafe-jafe yu tar moom la secteur bii di jànkonteel ci euh, xët bu njëkk bu euh, yéenekaay bi nga gis fa sax nataalu jëwriñ mi ñu ko dénk nee na jëwriñ jooje nag sax daanaka moom it bi ñu ko fa indee ba léegi buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi daanaka du dara loo xamante ni defagum na ko fa te ñu jàpp ne mën naa jëmal secteur ba ca kanam mu nga ko yéene kaay bi di témoin xëy na tey ak autorisation candidat indépendant yi xam nga président Macky Sall fan yële rek am na kàddu yoo xamante ni fesaloon na lu jëm ci euh, ñooñee ñu tuddee ay candidat indépendant témoin xëy ak ñoom loolu nag tax na mu def ci xëtam ni la porte ouverte au zéro un pour loolu euh, mu ngi ci xëtu yéene kaay bi di témoin di témoin euh, Pape Cheikh euh, yéenekaay bi dafa xam xamle rek ne ay at a ngi nii candidat indépendant yi di bokk ci jongante présidentielle yi mais nee na quatre présidentielles euh, jot na fi jàll te gisuñu benn candidat indépendant boo xamante ni 2 pour cent sax mës nga ko am ñii 0 pour cent la ñuy am ñii 1 pour cent ba tax na yéenekaay bi di le témoin tey ji ci suba euh, ci la xëy ak nataalu ñu bëri ñoo xamante ne nekkoon nañ fi ay candidat indépendant ku ci mel ne maam Adama Guèye Amsatou Sow Sidibé Diouma Dieng Diakhaté ak ñeneen. mu ko donc loolu moo ne ci xëtu yéenekaay bi di euh, témoin euh, Daaru Musti ñàkk nañu ku jege lool yoonu mouride populaire loolee la xëyee tey la communauté mouride en deuil Euh, Darou Mouhty per son soufi Serigne Cheikh Khadim Mbacké s'en est allé à l'âge de 93 ans. loolu démb la démb la woon Pape Cheikh démb la xalif bu Daaru Musti euh, nelaw loolee ci la popu populaire euh, xëy ak euh, nataalam waaye tam ak at yi nga xamante ne amoon na ko laata muy génn àdduna di juróom-ñeent fukki at ak ñett mu ne nag jamono ji naqar ak tiis moom moo gën a fës ca bërëb ca dëkk ba daar Musti doon ñaareelu capital bu mouridisme fii ci Sénégal. Serigne Cheikh Khady ni ki démb la génn àddina yéenekaay bii di direct info xëy na ak loolu ci peggu xët bi ngi ko ciy gis Darou Mousti en deuil Serigne Cheikh Khadim Mbacké nous a quitté euh, leneen a ngi itam ñu ngi koy gis ci xëtu direct info euh, di ay mbir yoo xam ni euh, kii di Cheikh Gadiaga dafa ko wax ci journal bi moom nag ay réaction moo ngi ci xam naa ñu duñ ci sori ay fait faits divers la rek Fatima réew mi moom itam xëy na ci coow lu am ca biir Excaf arnaque ak désinvolture la ko tuddee. waaw arnaque euh, réew mi li mu jàpp ne moo di ne euh, groupe Excaf Télécom jamono ji li ñuy def wàllu njuuj njaaj dëgg la loolee dafa soxal TNT yi ndax mu ne bëri na ñoo xamante ne jëndoon nañu ay décodeur tey amatuñu benn signal tey teg ci ne euh, groupe bi daanaka ay publicité mensongère lay def maanaam di fësal loo xamante ne du dëgg loole ci la yéenekaay bi di réew mi xëy ak njuuj njaaj yi mu njort ne Excaf Télécom ci la nekk ak sénégal yi. ñu toj stade yéen kaay moom nag day dox ci lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram séq na waxtaan ak kii di Moussa Konaté euh, jëm ci ay résolution 2016 am nee na je veux marquer plus de buts moom Moussa Konaté waaw loolu la xamle moom euh, attaquant sénégalais boobu lu mu xamle moo di ne 2015 jàll na donte sax am na loo xamante ne def na ko ci at mi waaye bëgg naa def lu ko euh, raw wala lu sut loolu ci atum 2016 ndax kat attaquant la ñu wax te bu ñu ne attaquant marqué ay but lañ ci xam moom tax it nee na ay but yu bëri la bëgg a marqué ci atum 2016 euh, bilee voilà on va on va revenir sur un autre journal muy l'Observateur puisque nous allons nous allons nous rendre euh, tout de suite euh, au niveau de la rédaction centrale euh, du quotidien l'Observateur pour le menu euh, du quotidien l'Observateur de ce janvier Idrissa Sané que l'on retrouve juste après euh, on aura euh, les prévisions météo n'est-ce pas Fatima Ba Diakhaté donc retrouvons Idrissa Sané pour le menu du quotidien l'Observateur bonjour Idrissa Bonjour Pape Cheikh euh, Diallo ainsi qu'à toute l'équipe de Yeewu Leen, c'est toujours un immense plaisir euh, de vous retrouver et pour nos chers lecteurs, l'Observateur a encore euh, fait le plein à l'image de la une principale très chargée ce matin et qui ouvre par cette scène de western à l'ancienne piste où Barthélémy Diaz sort une arme, tire en l'air et menace les mécaniciens. Alors, ça a vraiment chauffé hier à l'ancienne piste à Mermoz. Le maire de Sacré-Cœur, euh, Mermoz, Barthélémy Diaz, s'est encore euh, illustré en dégainant son arme et tirant en sommation en l'air façon pour lui d'apeurer les mécaniciens de l'ancienne piste et ces derniers qui organisent également la riposte. Tout cela est à lire dans l'Observateur. Un entretien à ne pas manquer de dans l'Observateur de ce matin, c'est celui que nous a le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, Abdou Ndene Sall, qui dit, je cite, le train express régional va près de 507 milliards de francs CFA. comme euh, à l'image des pays comme le Maroc, le Sénégal sera doté d'un train express régional à l'horizon 2019 et dans l'entretien qu'il nous a accordé, Abdou important projet du président Macky depuis le début de son magistère. Euh, Serigne Cheikh Khadi Mbake, un modèle achevé du désintéressement, est également à lire dans l'Observateur de ce matin. Il faut également lire cette histoire euh, à Hambourg euh, où un policier a été arrêté pour trafic de drogue. Je n'en dirai pas plus, les détails sont à lire. Et à Saint-Louis, un certain Aliou Sow a de 15 ans de travaux forcés. Il a tout simplement décapité le 17 janvier 2014 son neveu de 7 ans avant de dissimuler son corps dans un sac. Le film de l'horreur dans la commune de Guédé chantier, c'est dans le département de Podor, s'est invité hier au rôle de la chambre criminelle de Saint-Louis. Et sport pour euh, terminer, c'est la lutte qui s'invite à la une avec le lutteur Zos de l'écurie d'Or Dorade qui dit, cite, face à moi, c'est Tafatine qui prendra les coups après plusieurs euh, renvois entre des questions d'argent et de refus de Guigui de lutter en Gambie. Le tournoi de lutte avec frappe doté du drapeau de la TNT peut bien connaître une issue heureuse si l'on en croit Zos engagé dans ce tournoi à 4 les poches remplies par les organisateurs du tournoi. Zos, qui a essuyé deux défaites de rang, espère euh, sauver l'honneur pour son dernier combat contre Tafatine, qu'il promet de tabasser avant de terrasser. C'était donc là le menu de l'Observateur de ce jeudi, chers lecteurs. Merci d'avoir suivi et bonne lecture à toutes et à tous. Mais merci en tout cas à vous, euh, à la rédaction de l'Observateur. Merci euh, Idrissa Sané ñu ngi gërëm donc rédaction bu l'Observateur euh, ci euh, l'Observateur bu tey bi Idrissa Sané moo ñu doon présenté ci français euh, menu l'Observateur bu tey tombé ak jeudi 7 euh, janvier 2016. On va se faire un point sur la météo tout de suite ak Fatima Ba Diakhaté tey ji yeewu nañu ak lu toll ci 23 degrés météo ngi ñuy xamal ni température bi mën na wàcc tey ba 17 degré Fatima. 17 degré Pape ci biir réew mi lay doon ca bët saalumu réew mii di euh, Kolda foofee la ñuy am température bi gën a tuuti euh, euh, ci suba subateel gi di 17 degré Dakar ci subateel gi daanaka mooy gën a tàng ndax mooy yeewoo ak température bi gën a mag di 23 degré Saint-Louis 21 degré Podor 22 degré Matam 21 degré Linguère 22 degré Diourbel 21 degré Kaolack 20 degré Tambacounda 19 degré Ziguinchor 18 degré Kédougou itam. 18 degré lay am ci suba teel gi bu ñu demee ba ci ngoon nag yooyu les température eh, dinañu yéeg ba yegg si 38 degré di température bi gën a mag ca Linguère lañ koy am bi gën a tuuti 29 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis 34 degré. Podor 37 degré Matam 37 degré Diourbel ak Kaolack 36 degré Tambacounda 35 degré Ziguinchor 34 degré Kolda ak Kédougou 33 euh, euh, degré tey jii nag ci bëccëg gi léeg-léeg dina euh, naaj léeg-léeg itam ay niir dinañ doxantu ci asamaan si waaye peexum fajar geek guddi gi moom moo gën a fës daanaka fépp ci réew mi ñu wax ci marée yi géej gi nag wàccoon na ci guddi une heure dina wàccaat itam bu ci kaname eh, bu 13h tegalee fukki simili eh, géej gi jamono ji dafa wàcc loole mi ngi door bi 7h tegalee juróomi simili eh, dina yéegaat itam bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee fanweeri simili ak juróom ñi nga xamante ne dañuy dem géej di wuti jën jàppale ni moment yu gën a am solo ci bëccëgu tey gi mu ngi toll ci diggante 10h59 jàpp 12h59 bu ñu demee itam ba ci guddi 23h26 jàpp 1h26 dina doon moment. développement bu am solo ci nappkat yi euh, jant bi nag moom fi lekk euh, wala boog mi ngi soog di yeew 7h37 euh, dina sow bu juróom benn waxtu ci ngoon tegalee juróom fukki simili ak juróom Pape loolu euh, mooy xibaaru jaww ji ñu ngi ci gërëm bu baax waa service national météo merci Fatima Ba Jaxate euh, xanaa ñu bàyyi la rek nga daw euh, àggali liggéey bi taataani xibaar te xam ne fi léegi ay minute da ngay dellu si ngir jukkil ñu ay xibaar beneen jotaay bi bu 8 jotee dañ ci àndandoo ak yeewu mën ngeen itam yër suñu site internet bi muy www.igfm.sn bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa xam leen itam ni bu ngeen duggee ci site bi lii la xëyee tey jëm na ci ay ponk yoo xamante ni soxal na réew mi mi ci wàllu xibaar waaye li xew ci réew mi ak it biti réew ci ponk yëpp euh, ci domaine yëpp plutôt euh, muy politique société culture lu ngeen euh, soxla rek bëgg koo xam ci wàllu information fii ci Sénégal naka la ko Kouthia daan waxee Kouthia koy wax xaw ma information c'est ça voilà Kouthia ko daan wax donc lu ngeen bëgg ci information rek mu ngi ci site bi euh, di www.igfm.sn ñu jox leen euh, waxtu julli yi nu mu gënee gaaw euh, balaa ñu jàll ci leneen waxtu julli nag fi mu toll tembe tey di 7 janvier 2016 julli fajar mu ngi toll ci 6h21. Tisbaar mu ngi tollu ci 13h16 Takkusaan mu ngi tollu ci 16h31 Timis mu ngi tollu ci 19h 19h Gée mu ngi toll ci 20 h kon julli fajar bi 6h21 euh, tisbaar 1h16 euh, takkusaan 4h31 euh, timis 7h pile gée mu ngi toll ci 8 h ñu jox leen euh, waxtu julli yi ci jàngu yi seeni mees li ko tàmbalee cathédrale ba martyr de l'Ouganda euh, bu ngeen ko xoolee noonu daanaka bëriwul ay coppite ndax boobu ba tey heure yi lañ leen di amaleel amalal ay mees. ci jàngu yi cathédrale 7h ak 18 trent 30 martyr de l'Ouganda am na ñaari messe ci bis bi tey 6 h ak 18h30 église bu Saint-Joseph dina am benn messe 18h30 euh, yeneen jàngu yi bu fekkee am ngeen ay waxtu messe ak ñoom seen ngeen bëgg ñu koy jàllale n'hésitez surtout pas man ngeen ñu yónnee seeni heure messe ci suñu adresse mail euh, bu ko defee ñu koy jàllale gratuitement pour euh, sunu mbokk kër cen yi ñoom itam bëgg nañu am xam seen yu baax ça leur permet di dem messe ci wàllu koom taux de change bi lañ leen di jox léegi euh, ci waxtu wii ñu waxee wax ak yéen euh, bu ngeen deewee ci CFA euh, ci ñaata la war a tollu ak yeneen xaalis yi bu dee un dollar par exemple xaalisu Amérique mu ngi toll ci 606 virgule 025 francs CFA bu dee un euro mu ngi toll ci 655 virgule 957 ak bëri jom moom euro bu dee une livre sterling mu ngi toll ci 886 virgule 849 francs CFA xaalisu Chine un yuan chinois mu ngi toll ci 91 euh, virgule 9013 francs CFA donc loolu taux de change bi la euh, ñu jox leen ko ngeen mën cee bàyyi xel mbokk yi nii alxames bu jot ca kanam daal ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu science ak chimie ak physique ñoom seen physique plutôt euh, ñoom seen Bijou Ndiaye wala Bijou Si moom nag Bijou Si bee koy gënal waaye xam nga itam bu ko tegoon ci yoon Bijou Ndiaye si lay dégg ñu ay nawleem ñu dégg mat leen jaw Ndiaye. waaye comme moom nee na sibi rek ko gënal léegi la a vendu nom de papa et tout de famille c'est pas grave bijou si euh, ñu ànd ak yow ca kanam ci wàllu science wàllu chimie wàllu physique Euh, c'est vrai que euh, boo jegee boroom xam-xam yi euh, bu ñu tegee seen ay affaire ba pare après tu te dis ndekete c'est surtout que ndekete Sénégal liggéey mel ni mi ngi fi am professeur Diallo la ñuy àndal ci kanam parce que la dernière fois on vous de benn feebar bu tudd bilharziose boo xamante ne dafay affecté population bi nekk ci côté vallée du fleuve Sénégal actuellement université Cheikh Anta Diop en collaboration ak université bu nekk Québec dañu def benn projet boo xamante ne c'est pour prévenir euh, l'apparition de virus bi euh, responsable de cette maladie. pour mën euh, prévenir population bi ba nga xam ne du ñu dugg ci ndox yi leen di jox feebar boobu donc la dernière fois indi nañ aspect théorique bi expliquer pourquoi expérience bi cette fois-ci aspect pratique bi lañ leen di woon ak yan machine ak ban montage la ñu def pour mun a déterminer euh, virus bi responsable euh, feebaru bilharziose bi. Mhm. kañ lay nekk ci ndox bi pour nga xam mun a euh, prévenir waa service d'hygiène ba nga xam ne population bi duñ fa dem di sangu wala ñuy naan. wala parce que la dernière fois tu m'avais dit que xam nga li ñuy faral di wax naan Ndakaaru euh, du moom rek ay Sénégal yeneen mm. dëkk itam ci Sénégal la ñu bokk boo nekkee Ndakaaru boo xamul yenn yi da nga naan ça n'existe pas dans certains coins reculés yu nekk fii ci Sénégal am na ñoo xam ne ni ci même ndox mi mën nañ ci sangu ci fóot ci def ci seen yëpp. togg ci yëpp dafay indi ay feebar yu mel nii ni euh, bilharziose bilharziose. bilharziose te am na ay complications yoo xam ne su fa eggee c'est irréversible donc du baaxati ci nit ki. voilà te foofu lim fa am dafa bëri je pense que 7 pour cent de la population am nañu feebar bi. ñu xam ko wala ñu ñàkk ko xam. jeex na kon ci kanam di nga ko fi ci ak borom xam-xam yi nga xamee ni ay scientifique lañu ay scientifique lañu ko comme on les appelle ah c'est des c'est des professeurs euh, demoon nga seeti leen euh, dina ñu dinañu desandi tuuti euh, ci wàllu ci domaine boobu noonu ci wàllu wér-gu-yaram puisque tout à l'heure faatu ki ne dem dina waxtaan ak ñun ci feebar bii ñu tuddee hémorroïde bëri ngeen ci di ci am ay jafe-jafe naka lay ñëwee ak naka lañu koy éviter daañ ci waxtaan xam nga bàjjenu gox moom Fatou Kiné grâce ak moom bëri euh, ci yenn ci ay feebar yenn saa yi sax du ñu bàyyi ba mu dal ñu mais bu ñu déggee mu wax ko rek euh, dinañ ko jéem a moytu donc hémorroïde euh, naka lay def ci yaram ak naka la ñu koy moytoog naka lay duggee ci doomi aadama wala naka lay doonee feebar ndax am na yu ñu ma expliqué sànq mais damay bàyyi ba fa Fatou ne ñëw ñu doog ci waxtaan donc ca kanam daañu waxtaane wérgu yaram ak wopp boobu la nga xam ne nii dal na ñu bëri te mu metti lool dinañu waxtaane itam yu jëm ci li ñu tuddee feneen fashion comme Euh, Mado feneen la génn ci wàllu fashion muy friperie ah fëgg jaay la ñu ko tuddee waaye friperie euh, ñun xam nañu valeur am parce que yenn saa yi nga jënd fa dara euh, sëgg si gi am lu baax. waaw comme ni nga koy waxee Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek ñun xam nañ ko ndax léeg-léeg boo sëggee si gi daj ci loo xamante ne day baax ñu tasee nag benn doomu réew bi moom itam mu am cette même initiative jël nag li nga xamante ne moom moo di yére yu muy jëndee fëgg jaay recycler ko defaraat ko ba nga xamante ne nit ki dina ko mën a jënd wa bal bi euh, am na ñu ciy daan seen doole ah. bal bi donc am na am na ci am qualité ah. am yu am qualité donc kooku nag moom ligne bu mu lancé rek mooy daf koy jëlaat. Mhm. Mhm. mais daf koy changer comme par exemple lii lay yokk ci vax métamorphose ah, ko ba nga xamante ne day nekkaat sañse bu bees. Mhm. te teewul ci bi lay jógee. donc ci kanam bi nga génn feneen ci wàllu fashion ak Mado comme <laughs> surtout comme chaque di euh, bu weesoo bien-être yeeg ñoom seen day indi yu baax yu riis yoo xamante ni ça peut toujours euh, ça peut toujours nous servir et puis Alfie saf loxo. Euh, indee na beneen saltimoka. Hmm, tout à fait Pape ku doy waar bien prononcé saltimoka c'est ça saltimboka saltimboka euh, bu dee bu dee italienne Italie Italie ñu ne ko saltimboka. Hmm. donc euh, tey moom lañuy ñuy togg ah. kenn bouche la. ah saltimboka donc c'est à base de viande donc ci kanam bu ñu développé. Hmm. dinaa la expliquer. naka lañ koy defaree Pape Cheikh toujours avec les boursoufia mu nekk benn recette boo xamante ne Italie lañ ko jëlee. voilà et puis defi Aminata ci kanam dina dem euh, seeti ki nga xamante ni moo di Boubacar Sagna euh, xam nga on adore parler avec ces jeune de la diaspora ils sont partis de rien dem dëkk feneen jékki-jékki ñëw indi seen ay mbir teg ko fii ci Sénégal pour que seen dëkk mën ci profité comme chaque jeudi euh, tey defi diis nag ki ñuy seeti mu ngi yóotu Boubacar Sagna alors mu ngi yëngu nag am solo yoo xamante ni quand a rencontré il l'histoire Aminata Sarr nous parlera de lui et puis on proposera euh, entretien bi nga xamante ne am nañu ko ak moom ba d'accord ni tey moo de relevé défi bi et que il pourra servir d'exemple aux autres jeunes et puis lu jëm ci mbir moom mu tuuti euh, tey comme chaque jeudi ci fiche métier Kia jog Job dina waxtaanee métier bi ñu tuddee euh, les métiers e-commerce xam nga bu ngeen seetloo ci internet bi y toujours possibilité ak sa carte ak ñoom seen jënd ba jaay yooyu yëpp mën na nekk donc ñu ngi ko tuddee e-commerce dafa xew lool Euh, ay dëkk yu mel ni euh, euh, Côte d'Ivoire dafa développé boo demee fu mel ni Afrique du Sud dafa développé fii mu ngi commencé di jël di jël forme tuuti donc kii a ay dara dinañu présenter boobu lee jëm ci wàllu e-commerce El Hadj Mbaye Gar mi itam mu ngi waajal teewaayam ci plateau bi ca kanam nañu fàttaliku mbootaayu face de l'orme xam naa ne xale yaa ngi rey waa groupe bokk jom xaw ma groupe groupe nan ngeen tudd ci sax yéen. groupe nopp sa jëkkër waaw waaye Fass tamit amoon na mbootaay boo xamante ni mbootaayu Fass de l'Orme la tudd bu xaw a méngoo rek su ma juumul ak seen mbootaay bi ngeen nas boobu ba tey waa waa nopp sa jëkkër <laughs> bii nag mooy mbootaayu Fass de l'Orme euh, dinañ dem seeti leen El Hadj Oumar Mbaye gar mi fàttaliku mag ñi ak ñu baax ñu am valeur ñu nga xam ne ñoo bokkoon ca mbootaayu Fass ñi yeewoo Fass tey ji ci suba gi tey fàttaliku loolu yaboo rek ngeen daas fanaanal toog xaar te xam ni El Hadji Mame euh, dina ci ñëw ci nu mu gën a yaatu en gros euh, c'est ce qui vous attend pour yeewu leenu euh, tey jeudi 7 janvier dañu bëgg rek yeewee leen ak woy woo xamee ni tey moom la ñu jël mooy woy wi ñuy béggal tey di féexal xol woy la boo xamante ni boo ko dégloo daf lay tax nga gën a nga gën a kuum saa yu coow li bëree su kër gi yëngoo soo xëyee amuloo dépense yenn saa yi mu metti lool doo xam noo koy fajee mais soo kuulee rek yoon wi ngay war a jaar dina gën a leer ci kaw ngu kuul c'est un bu beau titre euh, interprété par Coumba Gawlo Seck bu ci ànd ak El Hadj Doudou Ndiaye Koboro c'était il y a quelques euh, quelques def na deux trois ba quatre ans euh, wayu nag saa yoo ko dégloo rek da ngay kontaan donc ñun ñoo leen ko yeewee tey di leen ko gungee ci télévision Futurs média dina gën a leer ba doo ca mën man moi j'adore cette chanson ouh là là soo amee problème ba déglu ko tu te relèves waaw dafay dalal ah, dalal dalal dalal xel waaw après da lay yokk maanaam da lay jom day tax nga yeewu bëgg jóg bàyyi waaw bu neex wala bu na nga nga cool quoi c'est toujours bien d'être cool mais lan lan mooy lan mooy cool nan la ñuy coolé rester zen c'est maanaam luy xàppi luy fàtte say soucis ah, mooy bañ ko fàtte rek boo amee problème mel ni ko amul problème problème parce que tonton Garmi loolu sa xol ah nuy bokk nan la ñuy bokkee nii rek dugal si suufu bokkataan bi bokk kon lu ñuy téye la dañ ko mën a téye nii après nga def ko fii mais ça se voit pas non ça se sent voilà waaw léegi looy ça se sent ici dans le nez looy ça se ressent ah looy yëg mais looy yëg noo ko mën a yëkkati jële ko def bu ko bokk ay yëg-yëg la ah. maanaam muy def ci sa biir yaram dafa mel ni nga bëgg rek wala ah. jéem a koy coxi coxee loolu ngay xalaat di kontaan ah. donc li nga sentir nii fii ressentir ah ressentir li nga yëg maanaam li mooy nii léegi nii nii noo ko mënee jël def ko nii. ndeysaan te nga rek ba xam. wax nga dëgg de. waaw après ni maa ngi bëgg dafa mel ni maa ngi bëgg a dem de. <laughs> Adja maa ngi bëgg a dem de voilà donc Coumba Gawlo boobu ñu ngi leen koy may yéen ñi xëy tey ci fajar gi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média 7h58 euh, mooy doog a jot dans 2 minutes exactement dinañu àndaat ak euh, rédaction bi ci beneen journal bi Fatima Ba Jaxate mu ngi temp ndànk ni muy doxee nag dama ko waroon a woyal waaye wuyee maak fay ba jongama yaataalo <laughs> xaw ma nan la koy waxee ne nge ne nge ne nge jongama yaa taaru ewaay ewaay eh. jongama eh. <laughs> yaa taaru jongama yaa waaye ñoom day tollu toll tollu ñu woon ni yow xaw ma ndax juddu woon nga jamonoy clip boobu booba tam benn télé fi ne waaw bu ñu ko amoon sax teg ko waaye xaw ma yàlla nañu am jot bi moom day temp na ndànk comme jongama jongama yaa taaru déedéet <laughs> déedéet déedéet léegi dangay delluwaat ci biti nga dox ñëwaat ma xool ni nga ñëwee kenn du la filmer demal kenn du la filmer demal demal t'inquiète yow journaliste nga kenn du la filmer ci yooyu kenn du la filmer ci caaxaat yooyu doo dox waaw noo doon ñëwee demal nga <laughs> ni déggal li uy li ñi di la doon doxee bis ñaay soo ñu lay doxee léegi yaa taaru <laughs> naan na ngeen def yëpp <laughs> ko yu ko noonu lay doxee jo a jóg yow jógal wan ñu ni ngay doxee yow i wan ma ni ngay doxee fan yi ngir yàlla balaa journal bi gaawal jógal jógal jógal gaay yow yokkal ko loolu Aziz Aziz kii Soumaré wante mu ni ngay doxee normalement temps yi demal demal ma demal demal dox yokkal ko yow <laughs> Mado Mado dama may ci nooy doxee yow wuyu ma woo solee grand boobu nooy doxee sara ma may ma rek waaw may ma rek ngir yàlla yow tamit comme biisu may na ma rek après alfit na ma may Fatima may na ma benn léegi biisu may ma xool waa dama yokkal waaw voilà bi alfi demal mbaa am nga loo waabe am nga loo waabe ah am nga ko demal ma xool ay ca demal waaw waaw nañu foo tuuti rek bon e eh, bii fu man kee la jox ko ma la ñu wax eh, bon eh, amoo amoo loo waabee de déedéet toogal yow bi bi bi ñii waa groupe waa groupe nopp sa jëkkër ñoo ko moom <laughs> ñoom nag ñooy groupe nopp sa jëkkër biisu mu biisu mu jibi Fatima mu booy mu garaa jaxate <laughs> ak Mado mu garaa Njaay voilà cadre la ca Mali ak Alfimou Alfimou Félix comment waa Fongolé bi plutôt allez on vous souhaite une bonne journée yéen ñu xëy tey ci fajar gi àndandoo ak ñun 8 heures mooy doog a jot jot nañoo temp ndànk ak waa groupe Nopp sa jëkkër léegi nag ñu bàyyi leen ak kenn ci ñoom euh, garmi tam de mu ngi temp ndànk di ñëw waa kii de xanaa alaaji yaataaru <laughs> xanaa loolu lañ koy woyal ma ngay tepp ndànk comme Samba Linguère alaaji yaataaru <laughs> mbokk ñu bàyyi leen ak Fatima Ba Jaxate euh, bu journal ba noppi ñu àggali jotaay bi ñu ngi jëm ak yéen 11h. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias xibaaru juróom-ñetti waxtu yi ñu doore ko procès bu Mamadou Diop verdict bi nag ñu ngi koy xaar ni ki tey jii Mamadou Diop nag di étudiant boobulee ñu faatoon ci manifester yu amoon ci place de l'Obélisque ci jamono yi ñuy waajal élection présidentielle bu atum 2012 ñaari policier nag ñoom jotoon nañ leen a teg loxo ba noppi ñaar ñooñee la ñuy àtte xool ndax tey ñoom liñ leen toppee am na am déet dinañ leen ko toppal xibaar ñu wax ci opération de déguerpissement bi amoon ci ancienne piste bu Mermoz Sacré-Cœur maire ba di Barthélémy jaas moom moo ko euh, amal euh, mécanicien yi nag maire ba futtu ne ñoom xalaatuñu benn yoon jógee ca bërëb ba ndax ab titre foncier euh, moom lañu am ñu teewlu ci Mame Biram Diouf Pape Fall. mécaniciens yi ni lañu wane seen ñàkk ànd ci nga xam ni mairie bu Mermoz sacré na ko amal. ñun nag ñu ngi fi sàcc ñu fenu ñu te ñu fekk terrain jàmbur ñu dugg fi terrain bi bi ñu fiy dugg ñun lañ ko joxoon ñun ñoo ko moom ñun dañoo jàppoon ne sax ñun ñoo ko moom ki ñu ko joxoon mooy ville de Dakar pour def ko ay garage Mamadou Diop ancien maire de Dakar defal ñu ay plan defaroon ko ne c'était pour déguerpir les les les les garages yi nekk ci biir euh, Dakar moo taxoon mu clôturer terrain bi jox ñu ko dem leen ngeen toog dinaa ko defar c'était un projet bien défini. Barthélémy Diaz mais jàpp ne ci yoonam la nekk ne du ci dellu gannaaw benn yoon. ñu toog ak ñoom du benn yoon du ñaari yoon waxtaan ak ñoom ba ñu juboo ci juboo boobu ku borom terrain bi euh, nangoon na leen jox 60 millions pour ñoom ñu mën a dem feneen wuti beneen place mën ko jënd ndax ñu mën a daan seen doole ñu d'accordoon tënkoon lépp tey nag ñu demoon ci ñoom waxtaan ak ñoom ku am ci ñoom ay xale yu jóg di sandi ay xeer ak di di di jéem a yee fitna lu ma bëggoon wax mooy gox gi ñun dañu fal kenn faluñu nag ñuy xuloo ak di xeex wante suñu liggéey dinañ ko def ci kattanu yàlla. léegi nag ñuy def appel au euh, au président de la république en passant par le premier ministre et la ministre Abdoulaye Daouda Diallo parce que kii menacé nañu nee na dina lakk suñu garage léegi naa tiré na fa ay bal parce que sama ginnaaw la ñëw te bu fekkoon na respecte na nit ñi bu ñëwee ñu ne ko kilifa bi nekk fi. li fi xew rek moo koy indi kon bu dafa waroon a toog xaar ma ci ba mu ñëw. bàyyi ci la mi ñëw na ñun day foqati miir bi suñu suñu loxo kanaa ñun duñ góor lu waa am na lu tax muy dal suñu kaw loolu lañ bëgg a laaj. ndax moom mi dafa génne woon gànnaayam téere ci kaw ngir nit ñi mën a tas mu ne loolu nag mënu ci wax waaye li mu fas yéene def noppi na ci dem ba jeex. kuy sénégalais am oto ci terrain bi mooy terrain Jeanne d'Arc nekk ci piste ancienne piste euh, deux voies ñu lay ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam na nga ñëw jël soo oto déguerpissement bi dinañ ko def parce que loolu mooy suñu liggéey te xam ne ñu koy defee. Barthélemy Dias ba tey di xam ne ni yëgal na procureur lii xew ak it sous-préfet mën yi dina ko yeggee ministre de l'intérieur te it dina dellu si fii ngir jëlee liggéeykatu gox-goxaan yi ñoom sumb seen ñaareelu plan d'action duppeeko retour au maanaam nañ leen delloo ca ville de Dakar loolee la Sidiya Ndiaye ak ñu mu àndal euh, bëgg démb nag ñu ngi daje euh, ca mairie bu Médina lu ñu xamle moo di ne ab marche ñu ngi koy euh, waajal te da ku ñu it banque seen yoxo ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci collectivité locale yi ñoom lu ñu bëgg moo di nguur gi xoolaat ci ni mu gën a gaawee acte trois bu décentralisation ndax jafe yu bëri yu mu leen jural ñu teewlu ci Aminata Mbaye Sow ñun ñooy seeni argent. ci mairie bu Médina la ñu joxante rendez-vous ñii di ay liggéeykat ci gox-goxaan yi di woy di wane seen ñàkk ànd ak acte 3 de la décentralisation tey ji ñuy amal seen ñaareelu plan d'action ñu duppee ko ñibbi. ñoom dañoo sonn ci réforme boo xamante ne mënul antu parce que mënoo def réforme depuis at ba 14 mois mënul antu maanaam deuxième phase bi ñu xaar ba léegi kenn gisul deuxième phase bi te boobu moo gën a am solo maanaam comme comme collectivités locales yi foofu lañu koy aborder bu ñu paree tournée yi le 18 ñun dañu ne sax opération retour au bercail la ñu lancé maanaam nit bi acte bi nga xam ne préfet moo ko signé woon acte boobu dafa valable dañ nañ ko xotti nag officiellement. ci programme bi ay tournée ñu nam amal ci commune yu nekk fii ci Ndakaaru ab marche nationale loolu lépp bu ñu ci jógee ci grève la ñuy jublu. dinañ jël ay suñu matukaay pour dellu fu ñu jógee woon état préparé loolu balaa ville de Dakar di voté wala yeneen ville di voté seen budget. politique nag dafa doy ma ne bu ñu falee nit ñi ba pare nañ bay nit ñi liggéey bu ñu bëggee collectivités locales yi dox nañuy jox ay moyens collectivités locales yi ñuy dox waaye jaar ci suuf di jël tànn ay collectivités locales yi lañ jox ay moyens ñuy fay salaire bay ñeneen loolu tappale la ba tax na ñuy lancé appel njiitu réew mi ci boppam xamal ko ne réforme bi nga xam ne moom la sumb mi acte trois demul dikkul kon nag góorgóorlu mu xoolaat mbir mi su ko defulee nag collectivités locales dinañ jaxasoo fan yii di ñëw te duñu dal ginnaaw bu ñu fi jógee bu ñu paree 18 bi paree Pikine Guédiawaye Rufisque danañu mobiliser camarades def marche d'avertissement bu booba grève bi la ñuy sumbul te grève boobu dana dana métti. acte 3 de la décentralisation yenn ci ay maire tamit def nañ ko seen xeex bokk na ci Bamba Fall. plan de carrière kenn du ko briser nit ki dem am plan de carrière war a avancer dem ba ca digg ba nga delloo ko gannaaw mu perdre avantage avantage kenn du ko perte avantage kenn du ko un métier ko remettre en cause boo ko yokkul waroo ko wàññi. bu ñu réglé wul li nga xam ni ñii di ay liggéeykatu collectivité locale loolu la ñu namm fas nañu yéene gàllankoor liggéey bi ci biir collectivité locale yi te grève bi ñu namm amal nee nañu du am ab. Nous voulons un Sow maire bu Médina Bamba Fall ne day dëggal ni ay jafe-jafe am na ci acte 3 bu décentralisation te nee na nguur gi ci boppam xam na ko ndax ñaari weer yi ñu génn ñoom ñooy fay payooru ñi nga xamante ne moom moo di euh, liggéeykat yi ndax dañuy jàpp ne euh, collectivité locale yi léegi mënatuñu matale lépp mu ne nag jot na ñu taxaw ci bile acte 3 bu décentralisation xoolaat ko ci ni mu gën a gaawee ñu teewlu ay kàddoom. dafa ñaaw parce que boo vote boo defee décret def arrêté ba foog ni yaa mën nga dem ba mënoo di ko régler ci suuf bëggoo nit ñi yëg ko xam ngeen weer bi passé ak bëri ci topp état bi moo fayal yéen maire yi salaire dañ koy nëbb am na maire yoo xam ne boo demee ay Cambérène ak Patte d'Oie état beneen fayal waaw mais état bi moo leen jël en charge moo koy fay waaw am na yu deux milliards cinq cent yooyu pour ay commune yu mënul dem na kon boo demee ba état di fay suuf mooy la mu def baaxul mais pourquoi mooy Kounkané ab gox la bu nekk ci kaw route nationale numéro 6 ci département bu Vélingara askan wi nag maire ba furtu xamle seen i jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox mu sell ñàkkum électricité waaye itam ñàkkum bërëbu fajukaay ci seen dëkk boobule ñu ne nag jafe-jafe yooyu dafa war a jeex ci ni mu gëna gaawee ñuy sàkku ci kilifa yi ñu àddu ci bu loolu amulee ñoom dinañ leen euh, dégg ñu teewlu ci euh, kenn su suñuy euh, correspondant yu nekk foofule ca bët saalumu réew mi di Abdoulaye Diallo. kunkane va mal kunkane va mal ak slogan bi la ay téeméeri téeméeri nit yu askanu kunkane di gox wi nekk ca kaw route nationale numéro 6 nekk biir département Vélingara ak slogan yooyu boobee askan amale seen dox ñaxtu ngir wone seeni naxar ngir ñàkkum ndox mu sell ci seeni gox centre de santé courant gu doy ak ay jumtukaay ngir tàggat yaram. nous population de Kunkande avons décidé. ñun askan wi yeewoo ci Kunkande ñoo jël ndogal amal dox ñaxtu bi ngir tere nelaw benn dañoo bëgg am centre de santé ñaar wàllu courant soxal nañu ñett ndox mu sell ñeent ñu ubbal ñu caniveau yi fi tijji juróom ñu ubbil ñu fii ak unité fu ñuy yare jën comme suñu gox bi am na ab dex. cinquième l'installation d'une unité piscicole. bépp gox wi jot a dalal chantier yu MCA dañu leen a tabaxal ay jumtukaay yu bees sauf commune Koukandé ci kaddu boobee askan. dans une commune de près de 20 000 âmes. xel munta nangu ko gox wi ëmb lu ëpp ñaar fukki doomu aadama te ci gox woowu bu nit ki woppee du mën a faju ni mu waree duñ fi mën a am ndox mu sell wala courant bu doy te aussi bépp gox fu MCA jaar am nañu ay jumtukaay yu yees sauf ñun lu tax loolu. à l'exception de la commune de Koungane. askanu kunkane ñoo fas yéene wéy di yëngu-yëngal tànk nguur gi gestuwul seeni jafe-jafe bu ñu jógee ca bët saalumu réew mi nag ci diwaanu Matam la jëm foofee banque mondiale moo génnee ay koppar yu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar ngir rek ñu defar fa ay ouvrage hydraulique yoo xamante ne dina gën a ñogal mbayum ceeb mi loolee nag ñi ci yëngu rafetlu ko lool sayet it mobilisé na entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo war a def liggéey boobule ngir rek mbay mi mën a jaar ci correspondant foofulee ca Fouta di Ali Bandel xàll nañu ay pàcc yu yaatu ci àll bi ngir gën a yaatal tool yi indi nañu matériel agricole itam ngir mécaniser lu jëm ci wàllu mbayum ceeb gi waaye ba léegi jafe-jafe ngir amee ci ndox ci waxtu buñ ko bëggee doon na contrainte at bu jot nañu nemmeeku di dexub Sénégal gi day wàcce ba mu jéggi dayoo ba tax bras de yu mel ni Julol ak Jàmmeel dañ ndox mi dafay ñeer ba mu jeex tàkk mu yàgg nekk ab jafe-jafe bi tax ba doonte engagement bañ fii waaye ñàkkum ndox mi doon gàllankooral double culture di gouvernement bi nasoon na tey ji nag OMVS ci njàppandalu banque mondiale fukki milliards ak juróom-ñaar la ñu génnee ngir jàppale SAED mu amal ay ouvrage hydraulique ci Matam amoon nañ jafe-jafe boo xam ne bi fu ñu toll ñu ngi koy wax maanaam ñi nekk Amady Unaare ak Jéere beneen bi ci doolee ko moo di ne seen seen yi julool moo ko doon jox ndox te julool dafa di marigot boo xam ne ndox mi day gaaw a génn ba nga xam ne ñoom seen campagne hivernage sax ko jot a boucler ndox mi daal di génn mu nekk jafe-jafe toujours dañ doon wax waxu julal ci OMVS ndax dex gu mag gi bàyyi ndox mu doy pour que ñu mën a retenir ndox ci biir julal bi ba ñoom ñu mën yëgal seen campagne ci loolu jafe-jafe bu rëy la woon première phase bi tax na ba ñu mën am ouvrage boo xam léegi terre tax na ba hivernage mën nañ ko béy ak sécurité mën nañ même dolli def ci campagne contre saison léegi nag deuxième phase bi day gën a dëgëral loolu ndax bi ñuy defaree waa Amadou Kadiéré am na ñuy wax unité indépendante ay indépendante ñu ñu bàyyi woon léegi ñooñu dañ leen di boolewaat ñoom tam ci station de pompage yi parce que bëgg nañu ko boole si encore julal bi ni mënu ñàkkee ndox ni li li ci jafe-jafe bi fa am mu ngi jóge ci suuf yi jógee ci jéeri bi di wàcc si ci julal bi loolu tamit dañ bëgg ci deuxième bi xeex loolu li ñu koy xeex mooy daal di aménager bassin versant bi. di ab deuxième phase bi nga xamante ni béykat yi bokk ci département bu Matam ak bu kaneel wane nañu yaakaar gi ñu amee ci ëllëg de jéego yi nga xamante ni bëri na loolu ñu def ko ci wàllu woowee mu mën soppi xar kanam mbayum ceeb gi ci diwaanu dexub Sénégal gi. ci booru sayet nag daanaka noppi nañu désigné entreprise yi ñi nga xamante ni jox nañu leen ndigal ñu tàmbali liggéey bi ci lu gaaw Ali Bandolña ñu koy jaajëfal yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi rédaction bi dina fi tawaat benn waxtu ak yeneen i xibaar yeewu leen day wéy ak Pape Cheikh. jërëjëf euh, euh, Fatima mu nekkoon jotaayu xibaaru su gi journal 8h bi ci wolof lañ ci àndoon ak rédaction bi ñu ngi ci gërëm bu baax euh, di leen fàttaliwaat ni mën ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn itam bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa ci jotaay bi ñu leen koy wax rek bu ko defee ngeen di yër suñu site internet bi bu ñu noppee ci journal bi ni fajar gu jot dañuy dem fekki suñu correspondant yi fi ñu ne. Euh, waxtaan ak ñoom ci yoon euh, bëggoon nañoo dem Thiès fekk fa Cheikh waaye xam naa ne jàppandeegul ci ginnaaw euh, te duñu ko mën a xaar fàttali leen itam sànq rek ñu ngi leen koy wax El Hadj Mane Mbaye Garmi ca kanam dinañu àndandoo ak yow ngir waxtaanee mbootaay bii ñu tuddee mbootaayu face de l'orme waaw Baye Cheikh maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi di sargal tam équipe yi yeewu leen xam nga nag man tey la sama premier jour ci jour de l'an waaw ci at mi waaw ah, ci at mi ah. kon maa ngi leen di souhaiter joyeuse euh, année joyeuse année mhm. bonne et heureuse année di leen ci ñaanal jàmm amiin bay di ñaan daal dëgg-dëgg suñu jotaay bi yàlla nañ ko def at yu bëree bëri mu ànd jàmm ak tawféex amiin El Hadj ca kanam ndax man su ma leen gisee damay kontaan. dëgg yàlla xam nañu loolu. vraiment xam nga yeewu fajar yombul. déedéet te nag man dëgg-dëgg je suis pas embauché pour ma yeewu fajar. Ah. mais sopp leen moo tax ma yeewu fajar. wallaay xam nañu loolu nag. nous sommes nous sommes nous sommes très conscients de ah ça. ah oui ah oui nous ah sommes de ça. loolu moom loolu moom loolu moom euh, euh, bi boo na ko sóor. bëgg leen fajar gi rek ñu ngi lay woyal. waaw bëgg leen rek moo tax may ñëw léegi ñu rek lañ la woyal loolu la ñu woyal léegi ñëw waaw ñun da ñu koo jaral <laughs> jaral nga ñoo dugg studio sax génne ko singal ba noppi clip ko allah ji yaataaru waaw ngale <laughs> loolu foor na loolu foor na di bég nag di wax na nag euh, maa ngi ñëw nag tey ci face de l'orme xam nga face yi nag dafa bari ay face waaw face poète dafa am mhm. face casier mhm. face bâtiment mhm. bari na mais tey dama ñëw rek ci face de l'orme Baye Cheikh bu yeneen beneen jour yi ma ñëw ci yeneen face yi parce que léegi sama rubrique bi léegi dama ko dama ko def global ah léegi global waaye damay ñëw ci gox waaw bàyyi <laughs> bàyyi dama bari feem jinax day bari pax. wallaay soo ko soo ko soo ko dàqee ci pax mi dafa war a jël beneen pax. wallaay <laughs> léegi damay seet ñi nga xam ne ñoo fa nekk. Eh. ci benn gox. ma ma génne leen ñoom ñëpp ensemble. mu général mu général. waaw day nekk loo xam ne lii lu am solo la. Mm-hmm. moo tax tey képp koo xam ne kii yaa ngi dëkk Fass. Mm-hmm. ah <laughs> teeru ma. waaw te xam daal am na daal luy wàññi xew daal quelques parce que ci 2016 bi daal à partir de tey fàttaliku dafay global. waaw day global waaw day global. <laughs> jërëjëf El loolee ca kanam lañ ci àndandoo ak yow euh, Fatou Kiné itam ñoo ngi koy xaare ni ndax euh, war na yegg si léegi ci plateau bi ngir euh, ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu wér yaram ñu ngi jéggalu ci Café Info ñu ngi ci waroon a ànd ak ki nga xam ne ni moo di Abdoulaye Der Euh, waaye xam naa ni lundi euh, dina ñëw ci euh, plateau bi moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci pal gu bees gi ñu ko pal ci télé bi ak ñamu àndal ku ci mel ni Barka Ba ci rédaction bu télévision Futur Média ñoom ñi ñu ngi góor góorlu bu baax ngir gën di ñu dimbali ñuy tàggoo ak kumpa kon dañuy jàll ci yoon itam Kya Aidara war moom la ñuy xaar pour mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ni moo di euh, euh, les métiers euh, e-commerce loolu nañ ci waxtaan ci kanam Alfi toggal ñu salti moka ba noppi itam défi 10 Boubacar Sagna c'est parce que dañu waroon dem léegi ci li nga xamante ni moo di santé waaw xam nga li ñu waroon def léegi dafa taxawul moo tax waaw waaw te damaa bëri feem rek damay jël temps waaw waaw moo tax animateur yu mel ni man dafa xaw a jafe nag waaw xam ne mën naa koo meubler ba doo ko yëg waaye comme yéen ak may xas dugal leen publicité wala lu leen neex ñu xaar ah, ñii kat ñoo may mbi fa foore fii ci nopp ma bañ leen a faale ah. ma te <laughs> alfine yow yaay seytaane nag yow nag yaay seytaane nag yow nag kooba nag naa ah, ma dindil oreillette bi ma tekki ko bañ leen a déglu yow nag yaay ko Baye Cheikh danga may fàttali dem ca dañu dem dañu dem Paris maak Sali Bigué. bi nu Sali Bigué ba nga fay lamb ne ko mais looy a on a payé mu ne ma tënu ubbi bi nii bàyyi ko noonu. <laughs> waaw dëgg la de. <laughs> kay dindi de <laughs> <laughs> kon ñu jàll ci euh, publicité yi dellu si